je pense tey képp kuy nit am nga lu la metti am nga tamit lu tooy sa xol te dama yaakaar ni réew bu demee ba toll fii day baax ngir nit ñi am kàddu bu leen di dégg ndax même bu nekkee benn ndaw walla ñaar ñu lay bàyyi xel ba soo leen soo waxee mel ni ñoom nga waxal boo jëfee tamit mel ni ñoom nga jëfal fi réew tollu tey ba tax ay bakkan di ma yaakaar saafara bi mu ngi tey ci suñu njiitu réew le président de la république Macky Sall man damay ñaan nga àddu ci kàddu ndax réew bu demee ba ndaw fippu di jug dox doxu ñaxtu di xeex say doomu réew di sàmmante ay xeer durante ay bal ba dee ci am ak yàq ak yeneen yi ni mel te mu leer na la ni boo ci jógoon sa benn kàddu saafara jàngoro bi réew mi di dund yëpp tey ndax moo xam muy kilifa diine kilifa aada artiste rappeur footballeur ku mu mënti doon am na ay nit yu la gëm ba tax soo waxee ñu dégg boobu ba tey ñu ngi ñaan du ñu jóg nag ci di ñaan ndax jàmm ci la lépp xat ci jàmm la lépp xat ndaw bu jëlee xeer. jëmale ko ci waaye takk der di sànni na jàpp ni feram lay xaañ waaye takk der bu jëlee bal yi moom dem ci askan bi di sànni na jàpp ni mbokkam lay gaañ kon ñu ni neen la ñu ni neen man mi def prison xam kaso damay ñaan le président de la république encore une fois ñaan le ministre de la justice ñaan le procureur de la république lillaahi wa rasuul ndaw yi ñu japp ci manifestation yi ndaw yi ñu japp ci xeex seen àq ak fu réew ñu bàyyi leen ñu ñibbi ndax ndaw bu miinee kaso bu génnee def ñaawtif da koy yomb maa ngi koy wax ci benn way ñoom ñooy génnaat nekk délinquant bu ñu génnoon nag ne na ñëpp jël xeer sànni même bu nekkee ñaari nit dinañ ko gëm dinañu topp waaye li situation bi di compliqué di gën a dem ndaw ñi di gën a ñëkk xol yi di gën a tooy mer yi di gën a jóg damay ñaanaat encore une fois le président de la république au nom de tous les sénégalais di la sa askan di ñaan nga may leen ko ngir jàmm am ngir rek geste de noblesse di homme. ci situation bi di Guy Marius Sagna Karim Xurum Xaq Assane Diouf j'en passe ak Don mënti doon ak ak yelef Sénégal nga doon xeex ba li yëpp fekk si encore une fois le président de la république mu libéré leen te ñu ñibbi libéré ndaw yëpp yi nga xamante nañ manifestation le ministre de la justice comme le procureur de la république ñu bàyyi leen